من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر مكتلول دجوات أكين تسين جتاي مجالس بيدي أسلف مع القرآن ما قدم بنان لندن دون القرآن الكريم عندكم أم تسين كرجي دلا مزود كورا أو سنغال مي بيت القرآن الكريم في السنغال كم نين كم خمي لا مزود كورا في بلي دوغون سنغال نيبكم waaye asalafu ma alquran mag ñi fépp lañ dan dundé alquran ñu wéy rek diko dundu fi ci sebi Sébikotane comme ni ngeen ko xamé ànd koog suma mak mam bubu nday ma sha allah taala yal na yàlla dalal ko comme ni muy dalalé alquranul karim waye di jajeufal bu baakha bax jëm ji nga xamantene mom mo ñëw pour yeggali liggé bi fi muy mustafa sis ñu am lol andat ak yéen ci yeggali xalqa bi nga xamné mom mo wessu waye ñu tollon ci tomb bu am solo moy al ijraat an nihayya yi nga xamantene mag ñi dan nañ ko def ci daara yi nga xam ne eh, ndaw li su mokkalee alquranul karim jéego yiñ daan def yaakaar naa leeroon nañ ci ñëpp muy tasmiul juzi ak tasmiul kulli ñu pare ci andi woon marxalatu eh, nasxil quranil karim ala al mooy jàng bi ñuy jàng li ñuy tuddee eh, bekki maanaam ñoom ñuy jàng di binde alquranul karim ak ay am nan la ñuy bindee lépp loo xamante ne lu jëm ci rasm la waaye nu wéy ci loolu xale bi bi mu paree ci loolu nga xamante ne euh, muy bind parsumun wala rubu wala nisif ba nga xam ne moom mokkal na alquran waaye mën na koo bind ci lay ñëw ci benn jéego bi ñuy tuddee marxalatu kitabatil quranil karim ala al awraq ala al awraq moy marhala bu mujju bi nga xamantene mom lañ tuddé marhalatu bind kamil xale bi su paré dañuy day bind kamil kay yakuna shahadatan lahu bind kamil goké da fay nek li nga xamantene mom moy diplôme mom sëriñ bi da fay sàkku ci mom mom mu daldi bind kamil alquranul karim wa ya lahu min karamin wa karama sa loxo bi nga dandi bind ci alquranul karim ba mu jeex dara gënta reey lolu bind alquran ak sa loxo bi loxo bobé bu yowal qiyamé xolal nga talal ko borom bi subhanahu wa taala nga xam ne loxo yi doon jàpp rek dafay weex rawatina loxo boo xamante ne moom mo bind alquranul karim ku bindi alquranul karim kooku nuyu ko rek teraanga gudul jeex la yal na yàlla buur bi subhanahu wa may ko ndong yëpp waaye yàlla may ko képp ko xamante ne loolu fas yéene nga ko ci sa jëmm waaye bëgg nga ko ci sa doom yalla may la nga daal di bind alquranul karim ba mu jeex kon xale bi dafay bind kaamilu alquran wala mu bind ñaari kaamilu alquranul karim ñaare nga xam ne benn bi mën na koo bàyyi ci daara ji benn bi mu daal di koy yóbbaale mu nekk ab diplôme bi wane ne moom de ginnaaw ba mu jàngee alquranul karim ba mokkal ko waaye mën na bind alquranul karim ala dahril gayb nga xamante ne du ko xool yaa laha min karama nga xam ne sëriñ bi daal di koy jox kaamil boobee mu daal di koy yóbbul ka nga xamante ne moom mooy euh, way juram wala mu su demee daal mu yóbbul ko waa dëkk ba mooy sërica bu gën a bi nga xamante ne moom la leen di andil ndax moom dafa génnoon ci dëkk ba nekk ndaw dem ca daara ja at yu bëree bëri mu jàngee liggéey jàngee fa lu nekk ñu yar ko fa mu jàngee fa alquranul karim suy ñëw daf leen di sëriñ boobee dara gënta rëy mu daal bind kaamilu alquranul karim daal di koy téye ci loxoom muy kaamil goo xam ne moom la bind taxayalu alwalidu alladi aataahu waladahu haada almushaf alladi katabahu bi yadihi wayjur xamante ne doomam dafa ñëw andil ko sëriñ ca kaamilu alquran boo xam ne moom moo ko bind ak loxoom taxayalu farxata haada alwalid li nga xam ne mooy kontaan bi nga xamante ne moom la wayjur bi di kontaan mbégte bi nga xam ne mooy dugg ci xolam yàlla bu ko yàlla xañ benn wayjur bépp doom yàlla na la ko nga andil sa wayjur bii lee mbégte suñ ci paree mbokk yi am tomb boo xamante bu am solo la moom moo ca topp mooy ndaw li ginnaaw ba mu mokkale karim ñibbi ci ay nitam ñibbi ci village am dafa am nañ tuddee kawnu xifdi alqurani alkarim sababan li uluwi alhimma aw li uluwi almakana li nga xamante ne moom mooy mokkal alquran mag ña ku mokkaloon alquranul karim mokkal rek alquran da lay def kilifa ñoom ku mokkaloon alquran rek da ngay nekk kilifa da ngay nekk star day yëkkati li nga xam ne sa maqaama day day tax sa famille donte ay nit la ñu woon ñoo xamante ne kenn faalewu leen kenn yëgu leen il suffit que ñu ne famille sangam seen doom mokkal na alquran ñëpp leen di wekk ndax tey jii ñun ñu ngi dund loolu ba léegi nii ndax léegi ñun ñu ngi dund loolu suñu waxee ñu ne mag ñi lii mag ñi la ki nga xam ne doomam dafa mokkal alquran fu mu génne dañ koy joxoñ dañ koy wekk ci saasi soxna si nga xam ne am na doom ju mokkal alquran ñëpp koy respecté jox ko cër doom ji mokkal alquran waqad yuzawwaju ahyana su yegsee da nga gis woy jur yëpp di njëkkante kan moo koy may doomam soxna kan moo koy may soxna ñu takkal ko jabar ci saasi ñu defal ko feet goo xamante ne ñëpp koy teewe muy tari alquran ñëpp di bége wa qad yugdaqu wa tuxdaqu ilayhi alhadaya aljazila nga gis ñëpp di ko këpp di ko xëpp lan ay addiye yu jeex ñii di andi ay fas di ko may ñii di andi ay nag di ko may ñii ay xeer xar di ko may ñii di andi ay béy di ko may parce que mag ñi loolu lañ amoon comme ay en tant que hadaya léeg-léeg ku jóge fale ne ko sama tool sangam jëlal ma may la ko laa ilaha illallah nga gis te duñu yem foofu mag ñi dañ koy naan yow doo béy sax dañu daan xool maanaam altine gu nekk maanaam village bi diw moo ci mokkal alquran dañu naan altine bu ñu bu nekk suñu xëyee na ñëpp daje ca toolam ñu daal di koy béyal laa ilaha illallah qad xassasu lahu ayyaama amal ngir lan yaxfadu kitaaballah lii laaj leen ko mag ñi lii lu lu ñu xamoon la fii ci Sénégal dafa mokkal alquran waa village bi yëpp tayammunan wa tabarrukan minhu dañuy barkeellu ci alquranul karim googee nekk ci moom ñu yëkkati ko ndax alquranu yanfa yarfa yashfa dañuy koy jàppal maanaam lëndi bu nekk ñu ne toolu diw la ñuy la ñuy béy na ñëpp dem béyali ko lu tax li annahu yaxfadu kitaab allah dañuy jàpp bés bés sàngam dee kaay leen diw la ñuy defarali këram su fekkee jamonoy tabaxu ban wala jamonoy defar ko cage comme que mag ñi loolu lañ xewoon na ñëpp ànd daje ca këram daal di koy tabaxal sancal ko limaada li annahu yaxfadu kitaab allahi wa kalaam allah yaxfadu yaxfadu alquran alkarim mag ñi subhaanallah ñoom dañoo war maaloo ndaw lu mokkal alquran parce que xam-xam moo mel noonu waaye tey jii do ñun dañuy doyadal nitu alquranul karim yi te imaam ay dafa waxoon naan ra'aytu al-ilma saaxibuhu karimu walaw waladathu aabaa'un li'aamu borom xam-xam dañ koy teral dañ koy teddal yàlla buur bi subhaanahu wa taala nee bokk na ci teral wekk yàlla buur bi subhaanahu wa taala wekku mokkal alquraanul karim kon lii tomb bu am solo la boo xam ne bu jara tudd la kon tey jii muy waa réew mi ñii di dund ci jamono léeg nit nga soo bañee yàqule rek bul xeeb borom alquran soo bañee yàlla jéppi la bul jëppi borom alquran soo bañee yàlla xeeb la bul xeeb nitu alquran li annahu yaxfadu fi rasihi sifatan min sifati illahi subhanahu wa taala ndax alquran waxu yàlla la te waxu yàlla melokaanam la te ay melokaanu yàlla dafa yàgg amul fa mu dooree amul fu mu yem alquranu kalaamullah wa kalaamuhu sifatun min sifatihi wa sifatuhu abadiyatun azaliyatun la awala laha wala axir ab nit la koo xam ne dafa mokkal melokaanu yàlla bur bi subhanahu wa taala muy waxam kon moo tax kooku dañ ko war wekk mbokk yi li tomb bu rëy la bu am solo boo xamante ne mag ñi daan nañ ko dund kon dafay jaadu ñun ñu daal di leen koy fàttali te loolu mu daan amee fii ci Sénégal gii nga xamante ne ñun ñëpp ñooy ànd di teewlu jotaay bii nga xam ne moo di asalafu ma alquran yàlla na yàlla bur bi subhaanahu wa taala fayal ñu mag yàlla na nu leen yàlla fayal yàlla dajaleen yu ak ñoom ca aljanna wa ma dalika ala allahi bi aziz kon mbokk yi ma kaana min sawabin min arrahmani wa min xata'in